murid yi lay nandal daaru salaam di leen xibaar ndawal borom ba moo fa jaar yóbbu ko baax ta taarukaar bañu naa daaru salaam caal jëna moo fa ëpp taar cheikh mouhamadou roqaya nga jaaxaan ca biir di nu xaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu bokki jullit yi bokki taalibi yëpp rawatina waa kër cheikhul xadim yëpp yaakaar naa ko seetaan jataay bi sa xel war naa dem ci lu bari lool muy bis bi nga xam ne moo daan baaxoo woote at mu jot di bis boo xam ne ni jàmbaari lislaam ja moom lañ koy wooteel képp ko kenn koo xam ne murid yëpp xam nañ ko bokk ci njabootu Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou mu baax ma moom la ñuy bis bi ci diggalal Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya di sàkku nag bis bi kenn ku ko dégg ku ne rek nga soññ ci bokki taalibe yëpp xam ne bis la boo xam ne nii dañ ci fàttaliku sëriñ moo Modou Rokhaya di ko tàmbalee nag ca gaawaan mbokkum taalibe di dongo ci kër gi ànd ak dongay tarbiye di ko def muy sëriñ Mbacke Dieye di ko wootee ca gaawaan bis bi nag di ci woo taalibe yi sëriñ tubaay yëpp mu nag dongo yi nga xam ne bokk naa ñoom liggéeyub kër gi ak dongay Serigne Touba yi ak mboolem koo xam ne ab taalibe nga te yaakaar Cheikhul Khadim noo ngi lay woo ci bis boobee di ci ànd ak nag mboolem jullit yi bàyyiwunu nag genn kër diine kër diine yëpp noo ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne moom la ñu am di ci fàttali ko sunu yaakaar yi te ëllëg di Serigne Modou Rokhaya noo ngi ci woo ñëpp bàyyiwun kenn mu dëppoog nag ci tombeeg le 23 ca gaawaan ko defee le 24 le 25 di bis bu mag bi nga xam ne moom la ñuy defal Serigne Modou Rokhaya tombeeg addi ji nga xam ne baaxoo nañ koo dajale di ko jox Cheikhul Khadim kon noo ci ci soññi ñëpp. ginnaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi julli ci yonente bi di sant Serigne tubaab yi nga xam ni mooy yaakaari jaam ñi tey ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér tey ñaanal boroom ëtt bi di sëriñ Cheikh Anta mu yàgg a nekk ci suñu kanam. kon bis la boo xam ni ginnaaw bi mboole mbokk yëpp dajee dañu ci woote ni ko sëriñ Ndamtu Fay waxe bis la boo xam ni bisub jàmbaar la muy sëriñ Muhammadu Roqaya saa su jubee nag mboolem murit saadix yi taalibe yëpp dañuy jiital ay cant ak i ñaan mooy waral yëf yi yaatu waaye bis la boo xam ni ñu ngi ciy woo njabootug sëriñ Touba gépp di ci woo njabootug Maam Cheikh Anta di ci woo njabootug sëriñ Modou Mamoun waaye di ci woo njabootug Serigne Mouhamadou Rokhaya guddi gi ñu kontine di ci fàttaliku Cheikh Ibrahima Fall kon bis booba gannaaw woote bi buñ jëlee woote bi teg ko ci loxol Serigne mbay Dieye ak Baye Issa Jenn ak Serigne Modou mbay Diaw mboolem mbokk yi danañ ci jot waaye ba tey buñ jëlee woote bi teg ko ci loxol soxna maam faati mi nga xam ni moom lañ àndal ci bis booba fas yéene koo ànd mbokk yépp ñu di ko woote ak soxna joor mbokk yu jigéen yépp danañ ci jot waaye buñ jëlee bi teg ko ci loxol sëriñ maamun jéey mi nga xam ni mooy suñ kilifa ak sëriñ daawdi jéey ak sëñ Abdou mboolem doomu baay yëpp dana ko matale ba tax na bis la boo xam ni dañ cee bëgg képp koy dox ci yoon wi bis booba ñu ngi la ciy woo waaye bis la boo xam ni noonu ñu leen ko waxe ñu tuddee ko euh, ngontum maam Cheikh Ibrahima Fall kon bis la boo am ñu ngi ciy woo soxna Mbenn Mbàkke ak soxna maam Awa euh, ci mboolem daayira maam Jaara ak Sëriñ Galas Bey ñu ko jiite waaye mboolem daayira yi ne gaawaan ca tënku ci Serigne Mouhamadou Dieng xam ni bis la boo xamante ni bisub ñaan la bu ñuy gàttandoo bis bu mag boobu kon ñoo ngi ciy woo mbokki taalibe ba yépp di ñaan yàlla yóbbuñu ca ak jàmm bëgg nañ nag buñ te yeggee yaatal fa waxtaan wi lool ku ñuy wax sëriñ Basiiru bokk na ci ku fay teew ci waxtaan waaye waa daayira Ndooyeen eh, Bamba ak sëriñ Mamor Ndooy buñ leen ci tuddee danañ ñu ko jotalal bu baax daa daaira Mbàkke xawar euh, kër mag moom buñ ci tuddee koso mboolem ña fa nekk danañ ci jot kon mboolem ouvrier yin bokkalit muy tooy buñ ko tuddee ci ouvrier yi ak sëriñ morfaal mboolem ñëpp danañ ci jot kon ñoo ngi leen di xamal ni bis la boo xam ni dañ koy woote fas yéene ànd ceeg ñëpp Euh, kon ñu ngi tuuba ko jéggalu euh, mu mel ni euh, ni ko mbokk yu baax yi jiitu waxee rek noonu rek la deme dañoo dajee fii ci pàkk bu tedd bu barkel bi pàkk bu sell bi ngir fas yéene woote bis boo xam ne génnul yàlla génnul ab yonentam te yàlla digalu ñu ne yéen ñi gëm buñ leen woowee ci yàlla ak ab yonentam na ngeen wuy ji yonente bi da waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni bokk na ci li jullit euh, ameel moroomam ku ma àq bu ko woowee mu wuy ji ko woote bi mu koy wuy jee nag ak woote bi mu ko sañewoo mooy woote bi tënku ci bëgg-bëggu yàlla sunu borom ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woote bi ci loolu rekk la tegu ndax bis boo xam ne bis bu ñuy tuddee yàlla la euh, di fa jokk ak bokk di fa terale aw gan euh, di fa euh, waxtaane ku tedd ki di fa fàttali fàttalente suñ diine boobu bis moom mënee su ko génne ci bis bu yàlla tax a jug akub yonantam ba tax na kon ñu ngi leen di woo ci turu yàlla akub yonantam delloo ko ci aaya boobu ngir bëgg it mbokk yi wuy see ñu noonu kuy wuy si yàlla akub yonantam bi nag xëy na am na comportement boo xam ne moom la ñuy bëgg nga comporté woo ko loola it desu ko jàngal kenn ndax mbokk yi yàgges na leen woo yàgges nañoo wuy si ba xam nañ comportement bi jaadu diggante jaam bi ak borom bi su ko defee nag ci loolu lañuy jaar woo ci sunu mbokki jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ak mboolem ñi nga xam ne ñoom dañu bokkali Serigne Touba waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy sunu mbokki bopp ci fànn yëpp euh, ndax sëriñ dafa wax ne bis bi bis la boo xam ne xëy na yàlla jël natt bi teg ko ci kawam ñuy tudd bis bi di ko tudd rek waaye moom du ci dara dafa mel ni bis bi ginnaaw dogalu bu yàlla bi ñi koy doxal mooy bokk yi nga xam ni ñoom la bokkal ci wàllum baayam ñoom la bokkal it ci wàllum woy juróom jigéen ak ñi nga xam ne ñooy sopp yi ak am di jàmm yi ak ñi nga xam ne ñooy ay wëllëreem ak ñi nga xam ne ñooy ay dëkkandoom kon nee na bëgg na ñëpp xamee ko noonu position bi mu féete dafa jàpp boppam ni ab surgala la bu yàlla di liggéeyloo ci ay ci biiri sangam rek moom daa jàpp ne njaboot gi ak mbokk yi ñooy sang yi moom surga la rek bu yàlla teg nattub mu liggéeyal ay sangam kon ñu xam ne bis bi bis la boo xam ne euh, nee na tudd gi ñu koy tudd sax di tudd bis bi di ko ko askanale gis na ci moom lool ndax bu sañoon dañuy wax ne bisub bawal bawal yi rek ak bisub jullit ñëpp ndax itam daa jàpp ne bis bi moom bu doon moom képp la fii mu yegsi tey du fa yegsi waaye ay mbokki boppam ñoo ca jàpp te rafetal jàppin wax ba sax dafa mel ni pas-pas bi ñu ci am dafa mel ni moom mii day mel ni bu nattee pas-pasam day mel ni tollu leen ci dee dee ba tax na kon nee na dalal ngeen xelam bu baax a baax ni ngeen dalale xelam it nag euh, weesuwul lu dul bis yi mu ngeen dañ ko wuusi di ci ànd ak moom rafet na rafetaay boo xam ne na ca xolam sedd xelam dal dàll ca loolu moo tax mu am dalu xel bu baax a baax ci li ci karam jàpp ne buñ te yeggee da ngeen koo ànd ak moom ni ngeen daan ànd ak moom ñi jàll mbaa sax nu ko raw mbooleem koo xam ne turam ñëwut ci carnet bi te ko ci daayira te daayira bi lislaam rek tax koo jug ak liggéeyal Sëñ Tuubaa ak foo mën a nekk ñi ngi la ciy woo daayira yi bu ñu ko doon lim dañuy tàmbulee ci daayira xidmatul xadim bu daaru salaam seriñ Mbàkke nee na mi ngi leen ci woo bu baax di sàkk ngeen ñëw ànd kook moom raw ngeen ko daan àndeek moom ak daaira xidmatul xadim bu gaawaan ak daaira tasawudu sixaar soppee sëriñ xamidun ak daaira nuuru daarey ni ci njiital sëriñ Kanté ak daaira miftaaxu saada ci njiital sëriñ Abdullahi Ndooy mi ngi ci woowit daaira nuurul islaam soppee sëriñ Mbàkke Astu mi ngi ci woowit daaira soppee soxna jaara ci njiital sëriñ Moussa Siis di ci woo daaira soppee sëriñ Cheikh Gaynde di ci woo it daaira ahlu café soppe Serigne Gaynde di ci woo tam daaira ahlu bu gaawaan ci njiital Serigne Mamor Mbacke di ci woo daaira wakkaan xàqan bu gaawaan ci njiital Serigne Modou Dieng di ci woo daaira soppe yi soxna Anta Ndiaye Santhia nee na it mi ngi ci woo daaira maam Anta Ndiaye di ci woo it kuréel général bu Daaru Salaam di ci woo soppe Serigne Salihu ci njiital Serigne Abdoulahi Silla gaawaan di ci woo daaira Salaam di ci wowit it daaira soxna Mbène Mbakke muy e, soppay e, soxna jaara Busa Mariam di ci woo it daaira Xodama Siddiqin ci njiital sëriñ Sini Ndiaye di ci woo it daaira Xadaaiqul Fadail kër Serigne Takko di ci woo it daaira Tasawul Soxaar ci njiital Serigne Fallou Ba ca e, Boulevard di ci woo it daaira alxarakatu wal amalu lil Qur'an azim bu daara Serigne Cheikh li Mbakke di ci woowit daaira saadatu daarayni ci njiital sëriñ Modou Fall di ci woowit daaira matlabul fawzayni ci njiital sëriñ Njaga Njaay di ci woowit daaira làmp Mam Jaara ci njiital sëriñ Bachiru Njaay ay niki noonu it mi ngi ci woo association Daaru Salaam ak association marché ndigal ci njiital sëriñ Babacar Fall ak association euh, de développement Daaru Salaam ci njiital sëriñ Makka Diouf ñii xëy na ñoom la seen tur ci karta bi waaye mboolem daaira yëpp dawaa dawaayir yëpp fu ñu mën a ne ak association islamique yëpp ak jullit ñëpp mu ngi leen ci woo di leen ci tàllal loxo rawat na mbokki boppam yi nga xam ne mosuñoo denc di ko jàppale muy gën a dalal xelam ci ñoom bu baax di leen sant di leen gërëm ak dëkkandoo yi ak soppe yu baax ak am jàmm yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu daanaka seeni kàddu la ni sof sunu kàddu muy kàddu gu woote fàttali bis bi nga xamante ni nii eh, kenn ku ne xam na ni at mu jot ku aju ci maam Cheikh Anta ak noo ci ajoo sa bis la mooy bis bu àddiyee Daaru Salaam waaye amaat ci nag xas boo xam ni Serigne Modou Rokhaya jàmbaari lislaam da nga xam ne dundam gépp da koo jeexal ci liggéeyal Serigne tuubaa di eh, ñu ko ciy fàttaliku ci njiitul nag jëwrinam yi nga xam ni ñun suñu ndigal ci moom lay bàyyi ko muy maam Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya yu ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér saa yuñ jàppee bisub wooteb Daaru Salaam mu jàpp bisub màggal Serigne Modou Rokhaya ci bis boobee ci lay feddaliwaat ndigal li jëmee ko ci mbokk yi comme ni ko mbokk yi fi jaare waxe léegi waaye mu tàmbale ki sunu baay bi nga xam ni mooy sunu kilifa ñun ñëpp muy Serigne Mbaye Dieye ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér waaye day wolof yi dañuy faral di wax ni ku wàllu mburu te du dëkk te mbir mu nekk itam am na ko yàlla jagleel bis bi nag jagle gi mi ngi jaare ci Serigne Mbacké Dieye mi di sunu mbokk di sunu xarit di sunu lépp muy fàttaliku sangam ba di ko delloo njukkal di ko ñaanal waaye di ko sant muy Serigne Modou Rokhaya ngir ne yëg na ci boppam loo xamante nii ci Serigne Modou Rokhaya la ko suñu borom jaarale kon ko ak cant ko ak delloo ko njukkal warteef la moo tax at mu buñ jàppee bis bi mu jiitoo ko ñaari fan ngir lan teeroo ko bis bu mag bi ñu defal Serigne Modou Rokhaya ren nag moo war a nekk incha allah alxamis le 23 waaye ca àllarba ja nag lay tàmbali muy ngontum maam Cheikh Ibrahima Fall ndax maam Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam na taxawaayam ci yoon wi waaye doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall ak doxinu Serigne Modou day wenn doxin képp mooy sàkk ngërëmal Serigne Touba looloo kon kuy liggéeyal Serigne Touba faaw nga jox si ab cër ginnaaw bi mu ci dëppoog Serigne Cheikh ñuy def wala ñu koy yëkkati wala ñu koy yëngal te diggooñ ceeg Serigne ba am ci nag mu duppeewaat ko mbokkam sëriñ ji liggéey moo tax sëriñ ji tànn ci teemam silatu rahim mooy jokk mbokk sëriñ Mbàkke jox ko ko mooy mbokk gi lay dundal di ko rafetal looloo tax ñu tànnaat thème boo xam ne bu ñu nee boobee la fa fas yéene waxtaane ay boroomi xam-xam yu am solo dañ ko fa waxtaane bu ñëwee ba ci bis bi nag muy le 23 bi nag ñu xëyeeg yandoo ko ci jàng alquran ak xasiida ak bernde ak saafoonte ba keroog sëriñ bi di egsi incha allahu rabbi nii nag la programme ba fas yéene tëdde mooy jànkati xasida yi comme ni ma ko waxee sëñ daam mii ngeen dégg léegi bokk na ci sëñ Baara Ndiaye ak mboolem jànkati xasida yi nekk ki tund yi ñu ngi ciy woon ñëpp waaye jànkati alquran yi nag kenn gidaw leen ci ndax sëriñ Tuubaa lépp alquran la kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya uxra min al karbi ci njiitul mel ne bu ñu ko tuddee rek mbooleem daare alquran yi ci dëkk bi yëpp ñu ngi ci biir kon ñoom am nañ bu am solo buñ ko daan amee waaye ñu ngi koy gën a fàttaliwaat incha allahu rabbi ñu xam ne ñu teel a tàmbali kaamil yi ba bis ba ñu yendowaat ko ba bi ndax lim bañ jàngoon ci alquran daaw bëgg nañ lim boobee yokk te lépp ñu sellal ko def ko addiyee Serigne Modou Rokhaya waaye yéen ci mbooleem jullit ñëpp Serigne Fallou Gala Sillat incha allah am na waxtaanu am solo xam ne at mu ñu koy defal ren itam fas na ko yéene defaat ki dund Serigne Modou Rokhaya waaye bi muy a dajale jébbali ko fi nekk fi nekkal Serigne Touba te fas yéene luñ joxee ren bu kon loolu yaaj na ab soññee loolu Serigne Fallou Galass Syll moo koy féetewoo ren jii nag incha allah Serigne Ibrahima Mbacke Ndar moom maam Cheikh Anta nga xam ne mu nekkoon troisième xalifa maam Cheikh Anta moom la Serigne Mbacke jee xalaat tudde ko bis bi wax ko Serigne Cheikh Anta Serigne Cheikh bëkki lool kontaan ci lool ni ko na yaatu kon ñu ngi ciy woo njabootu Serigne Ibra Ndar gépp waaye mën naa ne ñu ngi ciy woo njabootu Serigne Gaawaan gépp ndax ku tudd Serigne leen nga xamante ne cër la ba tey ndax cër moom du tuut euh, te kenn koo xamante ni jël nga ci sa bis jox ko ca dara rek dina ree ca moom kee xam ne kenn la ci ëttub Serigne Cheikh Anta moom itam di jàmbaar lool muy Serigne Cheikh Sylla Diwane ku gis Serigne Cheikh Anta gis ko ci wetam muy jëfe ndigal bàyyi tere moom itam incha allahu rabbi moom la fas yéenee dara jaale bis bi ci buñ ci àggee kon yooyu mooy ñu ngi ko tuddee waaye dam dañuy fàttaliku ndax xam nañ ni bis bi ki ñu koy defal muy Serigne Modou Rokhaya bis fañ barkeem ku ne xaj na ci yërmandeem ak xéewalam ku ne xaj na ci mbokk yi nga xam ne dañ ko àndoon ak ñun daaw fekke ko àndoon ko ak ñun ren yàlla dogal ñu jiitu ci Serigne Mbacke nee na faaw ñu defal leen aw laaj ci bis bi fàttaliku leen ñaanal leen bokk na ci suñu bàjjan bi nga xam ne ma fa bàyyi ko bu yàggul soxna Ami Dieye ñu ngi ko ci fàttaliku ci bis bi waaye itam ku ñuy wax soxna Mame Maram Mbacke moom Serigne Abdourahmane moom sëñ Mudu Maamun di suñu sëriñ waaye di suñu mbokkaat ndax sa waajuróom bu jigéen soxna May Dieng suñu bàjjan la moom itam dañ koy fàttaliku ci bis bi waaye itam di sëriñ Alxaaji Jeng di kenn suñuy waajur moom itam euh, waxtu yu daaw fekkoon ko fi waaye di fàttaliku itam ku ñuy wax sëriñ Bada Njaay moom itam di suñu mbokk yoo xamante ni euh, waxtu yu daaw fi la ko fekkoon ñooñu suñu boroon dogal ñu jiitu ji ñooñu itam sëriñ Mbàkke nee na mi ngi leen di leen di fàttaliku waale ci bis bi yéene waale leen ci mboolem euh, alquran ak xasiida ak xéewal gi nga xam ni moo fay dotti ko auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi sunu wasila sëriñ Cheikh Anta di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu mbooleem kilifa yi ci Daaru Salaam yëpp di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu bu baax jotaay bi mu mel ni daanaka mënoon nañ cee bañ a wax ndax wax ji mën na sëkk ñi fi jaar moom li ñu wax lépp mat na waaw ñu ngi siyaare bu baax sunu kilifa gi fi teew. Baye nduur mi nga xam ne ginnaaw yàlla luñ mën ci métier mi moo ñu ko mënal te bi mu am ci taxawaay boo xam ne euh, yëgle bi fu ne la ciy dem di ko yëgle ngeen xam ne rek fu ci egg rek moom moo ñun la fa eggal dañ fa jotewul mu eggal ñu fa ñu mel noonu nag bari nañ ci lool ba ci soxna yi koñ yan nekk dañ fay laaj ay leetar di ko jottali soppee sëñ mu dox xëye yi mel ni soxna Ami juuf loolu yàgg na ci lool ak soxna May la ak soxna Diouf mi ci kër gi di soxna Sëñ Mbàkke Njaay mi foo xam ne nii suñ mënuñ fa àgg ndax yëgle bi day metti lool ñooñu ciy jàppale kon ak soxna Soodam Njaay male ñoom ñun ñëpp ñoo ngi ànd ak ñoom liggéey bi kon loolu sant nañ ci bu baax a baax ndax liggéeyal sëriñ bi boo koy def ñu ni la ñu jàppalee la ci lii kon loolu ak ak cant la mu ngi siyaare bu baax suñu jëwriñ ci dongay tarbiya yi maam Njaga Silla mi ngi nii teew ànd kook ñun ak suñu xalifa sëñ Mudu Maamun Jéey moom it at mu jot moom la koy ànde ak ñun comme niñ ko waxee léegi soxna Joor Jéey moom itam ànd ak soxna yi ñoom ñëpp rek e, sant nañ bu baax ci taxawaay bi lépp rafet na di ko fàttali it nag suñu wóllëre woo xam ne at mu jot jëfam dafay ñëw bàyyi maam Serigne Gueye daar rahman sëñ Afia Gaye daar rahman ak doomam sëñ Móori Gaye ñu ngi leen koy fàttali bu baax ci rendu hommage yi itam comme ni ko sëñ daaw da waxee moom Baye Sarr Tolier moom ñu dëkkal moom it ci la bokk moom ak Baye Bàcc Njaay nga xamante ni ci marché ndigal ak waajuru sëriñ Omar Mbay mi nga xam ne ñoo bokk di yëngatu ci liggéey bi te ñoom dañuy ñëw di teew ca bis ba ñoom ñëpp ñu ngi leen ci ñaanalaale ci kaamil yi di ko fàttali suñ mbokk ouvrier yi nga xam ne nii ñoo bokk liggéey bi muy carreleur yi ñoom ñëpp ak mason yi mboolem kuy ouvrier rek euh, tey dégg suñ kàddu rek fu foo ko déggee na na mel ni mooy sa woote bis bi daal ñu ngi am yéene ànd koog ñëpp li sëñ Bas wax nag doon na lu ma ci gën a neex ndax moom maa ko waxee noonu mu waxal ma ko noonu ndax man bis bi moom dañ ma ciy tudd rek waaye duma ci dara maanaam lépp nit ñee ko jagal rek ndax kenn mënut dara ndax lii ñu def lépp ñoom ñii ko ànd ak man at mu jot day dëgg rek ndax li ñuy def day dëgg ci ñoom ndax nekkul lenn lu ma leen di jox wala luñ ci am dañ koy def ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi sa at mu jot ñoo ma ciy soññ kon ànd kook man kon ñu ngi ci sant bu baax di sant it waa site bi nga xamante ni waa asalaami sëñ Fallou Galas si la yabal leen fi ndax sëñ Fàllu moom day royukaay ci ñun ndax bis yi buñ ko amee xel di ko def euh, ci moom lañ ko royee ndax moonu ci jiitu tey it toujours mu ñu ciy xelal di ñu ci jox ay conseil di ci jël euh, alalam di ci def bis biir it mosu koo manqué lool benn yoon moom sëñ Fàllu Galas si la ak waa këram yëpp mu ngi leen ci woo di leen ko fàttali bu baax bokk taalibe yëpp daal ñu ngi leen ko yëgal comme ngont mi itam ni mu demee bis la boo xam ne bas jeey sama rakk mi nga xam ne moo topp ci man ci wàllu liggéey bi ànd ak euh, gone yi jàng métier ci man moo dem ba am xel xalaat taxawal fa bisub ngontum maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ci waxtaan ak man nag du ci joo man ci lenn ma ne woon ko tuddee ko ji Dieye ñu tuddee woon ko suñ ji Dieye dara jaale ko waa daayira Ahlu Café bu soppee Serigne Cheikh Gaynde Mbàkke loolu bu nee suba la bis bi la am muy àllarba ji bu xëyee comme ni ko sëñ daaw da waxe noonu lay demee kon moom bis bi lépp ci wàccaayu àddiya yi la rek ñu xam ni bisu sëñ Modou Rokhaya mi ngi jub si loolu rek moom lañ ci namu ba tax ñu di ko def ñu ngi ciy sant mbokk taalib bi yëpp tey gërëm ahlu sikar moom ñoom lañ ko tuddee waaw moom lañ dara jaale guddi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp rek waaw jërë ngeen jëf. di ko fàttali suñ mbokk ouvrier yi nga xam ne nii ñoo bokk liggéey bi muy carreleur yi. ñoom ñëpp ak maçon yi mboolem kuy ouvrier rek euh, tey dégg suñ kàddu rek fu foo ko déggee na mel ni mooy sa woote bis bi daal ñu ngi am yéene ànd ko ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp bis bi yàlla na ko fekkee tal ko daje ci ngërëma sëriñ Touba barkeb sëriñ Modou Rokhaya guddig maam Cheikh Rafal ga noo ngi woon njabootu Cheikh Ibra gépp talal loxo ñëpp ñu dara yàlla ko sëriñ jiili jéey di mbokk di rakk di xarit di lépp di mag noo ngi koy siyaar di ko ci ñaanal mu daje ceeg tawféexi sëriñ Touba wasalaamaaleykum ngeen jëf bañu naa daaru salaam ca aljana moo fa ëpp taar cheikh mouhamadou roqaya nga jaaxaan ca biir di nu xaar cheikh muudu raw nga say morom ngir yaa liggéeyal sa borom mu fay la fay gu ñëpp yem jëf day taxaw ginnaaw borom